bonjour à toutes et à tous Salam alaikum sa mbokki ma ngi len di nuyu man la Betty Ndiago ma del siwaat rek voilà ma del siwaat dal deug rek yow Khalifon Sall suba defe dina la bolé ci sama sama live bi suba yow live bi ngeen def ak Mati 3 pom. maa ngi sogo deg, a ngi sogo a déglu encore yow Khalifon Sall da nga bëgg comparer sa bop ak Ousmane Sonko dedit. Khalifon Sall

manipulation boobu nga bëgg tek nonu mom ngeen bëgg tek ah da ngeen bëggoon Ousmane Sonko dem dem dem dem justice da ngeen ni Ousmane Sonko justice da ngeen dégg Ousmane Sonko bañ justice Khalifa Sall wa do leen ko dem jàppi rek keur Cité góor gi wala Casamance ngeen tribunal Khalifa Sall da nga ni yow da nga da nga yow ya demal sa bop gendarmerie yow xam nga nga dem gendarmerie da nga dem fofu gendarmerie di mani di gancé di manigancé quant à Ousmane Sonko mo mi ngi xaar ngeen convoquer ko Khalifa Sall ñi la yoni ñi leen yónni ñi convoqué ko Ousmane Sonko yorul justice du ma mooy juge moom yoru gendarmerie yoru police yoru commissaire yorul dara xam nga lu mu yor dëggoom rek ak jaamu yàllam ak dëgg bu ñuy woon Khalifa Sall donc sa histoire viol bi ngeen nekk ni ngeen bëgg a camoufler mati trois pommes ngeen bëgg a def camouf manipulation du jàll. Khalidou Babali yow ah comme ni da nga dem no gendarme da nga wane ni góor nga noonu <laughs> doo doo góor de da boo doon góor doo violé doom jàmbur. Mhm. boo doon góor Kalidou Babali di nga doon téye sa xuur yi quant à Ousmane Sonko ak aji saar mi fen moom nga bëgg a comparer Ousmane Sonko kër gi mu demoon di maasew foofu entreprise Ndeye Khady la fa dëkk du Adji Sarr rek moo fa nekk Kaliphone du Adji Sarr rek moo fa nekkoon jëkkër Ndeye Khady Ndiaye nekkoon na si biir kër gi yeneen masseurs yi ñi di liggéeyal Ndeye Khady Ndiaye nekkoon nañu si biir kër gi donc aji Sarr bu ko Ousmane Sonko violé woon.

la la doon pare la la doon pare ah Khaliphone Sall fii manipulation bi du jàll muy leer kër Ndeye Khady Ndiaye jëkkëram mi ngi woon fa yeneen liggéeykat mi ngi fa kër gi nekkul château nekkul château aji Sarr bu ñu ko violé waa koñ ba sax ñu koy dégg Sénégal bële Sénégal même bu nekkee kër gi château sa boo yuuxoo rek wuyaa yooyu ñu ngi may violé wuyaa yooyu yor nañu deux pistolets dañ koy dégg sàkkatuma borom kër gi nekk si biir kër gi jëkkër Ndeye Khady Ndiaye donc Khaliphone Sall waxoo fi tuus

léegi Khaliphone Sall me lay poser question Adjissar, dit ça, Balami faire Ousmane Sonko pourquoi moi, me poisonné des Khady ba pourquoi Adji ça, indi dans les classe restaurant yooyu ma ni dans les fi manipuler kenn seen dóor marto bi du marteau. waaw marto du ah. pom nga ni Ousmane Sonko dafa defa par mu yow da nga dem da <laughs> yow dañu fekke loy wax gendarme ñu wax ñu loo wax fofu gendarme man li ngeen nettali noonu Kaliphone Sall man góob ma da ngay fet gendarme bi na genn mu wax ñu yow la nga fa dem wax yi yow ko da nga jëk dem yow koy Kaliphone Sall to nga dem gendarmerie man beti beti mi la xam ah yow da nga dem kay pour protéger sa bop pour feral gel bi pour feral ki nga violé xam nee na ñaari gel lañ mais ki nga dóor ni kanam bi ba mu newi da nga daw dem da nga xam ne yow da ngay feñ nga motax nga daw parce que ñoom dañu la dañ la enri yow yow yow vidéo yow dégg nañu voix yi waaw léegi yow vidéo bi nga gisee yaayam xaw ma kan moo leen filmé nag xaw ma kan moo leen jàpp ojo yooyu Khalifa Sall si nga tiit nga dem fenal gel bi da nga jiitu fen yoo gendarme bi danga dem pour feni pour protéger sa bopp Ousmane Sonko moom laalul deful moo tax ñu nañ ko gëm te yàlla mi ñi tiim atte na dëgg bi ndax comploteur Adji saar yëpp feeñ nañ

eh manipulation du jàll li ngeen di wiri wiri wiiri yëpp du fi jall ça n'a rien à voir sa seen fen ak aji sar legui tax ngeen tëj aji sar pour doo do len gëna aji sar mu dox comme dom adamay eh? yi ah yow nga ni lan Gabriel kan dafa dem di défendre aji euh, sénégalais nek di takkee Gabriel Gabriel eh, en kay Gabriel kan? ñaata kan, at la nek Sénégal ñaata sénégalais lañu violer avant avant fen aji sar yi Gabriel kan fa la nekkoon ne day défendre jigéen ah moom défendre benn jigéen aji par hasard Adji Sarr rek la défendre aji Sarr rek. Khalidou Babali nee nañ leen yàlla moo leen weere waaye yàlla daf leen weere bëccëg ndar kaam loolu mooy dëgg ji ndax Gabriel Kane bu doon année yi mu nekk Sénégal yëpp mu ni elle a fait ses études en France muy défendre ay jigéen dafa war a défendre jigéen yi bëri Adji Sarr kañ la ko Gabriel Kane commencé défendre 2021.

xooleen bëtam yi muy xef melni ku ku ku mënul xef <laughs> kalido kalido kalido bokk la gëw bo contané Sénégalais xooleen kanamam même preuve bu feñu feeñuloon sax xooleen kanam califon sal par rapport bi lay bu contané rek ah ngeen xam ni mi ngi lox mi ngi tit nañ ma door pen même vingt ans mais ñe ñe ah légui da nga bëgg compa comme ça da nga bëgg def stratégie nonu tourner ko contre Ousmane Sonko quoi <laughs> te naa la campagne yéen sama thème si nga bokk dooli naa la si thème bi waaw ah yow xay Adji Sarr dèjà muy fenal Ousmane Sonko fan la dëkkoon du kër madame Tall mu ni madame Tall day dem Ziguinchor Californie ah kay Adji Sarr lu muy wuti Ziguinchor boobu boobu complot bi feeñagul lu muy wuti Ziguinchor Adji Sarr lan lay yéegee si kaw étage kër Ndeye Khady di digaté ñi na la may 300000 cent ak muy collègue am bi Khalifa sal ay Sarr diggaan amna ñu mu diggoon collègue am ñun faté ñu ré mané faté fàtte waaw faté ma de ah ni 300000 fi ak 300000 na la nexa 300000 cent sa Adji Sarr du muy cëppi cëppi cëppi bu mu nekkee kër Ndeye Khady di yéeg terrasse di wàcc di woote téléphone ah man man affaire bi nag est ce que du ma si est ce que du ma si am problème Khalifa déggul nañu audio yooyu yo. bu fi indi bu bu bu fi indi ñi ki ñànka mhm. ba pare caméra yi kër Ndeye Khady Ndiaye pourquoi ñu toj ko Khalifa Sall Ousmane Sonko bu néew la demu fa ngeen ngeen néew na Ousmane waxul dëgg mais moom nee na dem na fa massage yi la fa dem waaye kër googu Ousmane Sonko bu mu demee fekk na borom kër gi ku góor gi ah oui donc Ousmane Sonko bokkul ak yow yow da nga jël doomu jàmbur ah nga dem violé ko. même nee nga gel bi yaa ngi raconté n'importe quoi Khaliphone Sall man maa ngi yuuxu sax tubaab bi ñu may xool dañ ma xool fële damay yuuxu pause laa nekk waaw ah, xam nga bi damay yuuxu dëgg rek mais xam naa ni may yuuxoo fu ma dul yuuxoo may yuuxoo yow Kalidou Babali yow léegi yow yow yow yow Khaliphone Sall yow yow gel bi yow naka ngay amee jabar ngay demay bois de nuit yow loo jote gel bi ba kay dugal sa oto ba koy fóon mu ngi la bëggoon yow version bi nga expliqué nii

ba pare sañ na dem jël 67 millions dem saboter wa Touba pour jaxassé Mauritanie ak ak sénégalais ah Gabriel kan gisul gel bi ñu violé fofu Touba ñaata gel lañu violé Touba hein ñi ray ko. gel amna benn gel bo xamné yaayam mo gën wax réseaux sociaux lañ ko gissé dom ji dafa jàngi won ni day dem jël résultat dimanche ni day dem marché mais bala mi dem bala mi ki marché day dem jël résultat école gel bi anam du dañ ko ray Khaliphone Gabriel Kane wax si mais Gabriel Kane amna sañ-sañ day jël matériel 67 millions Yubu ko Touba par hasard quoi <laughs> Hein? ah donc Gabriel Kane gisul yoy cas yoy re gisul yi nga yi Sénégal xalé yi ñuy violé mi xalé yi ndaw ay xalé yi Gabriel Euh, par hasard bu aji sa la mën défendre quoi yeen ko leen na ko koo leen di gëlëm ah yéen daanu ngeen mom yeen la yéen da ngeen feñ ba ciëk ndar kam califon sa yo nga ni indi nonu tem yo mati trois mati pitax xaw mati janax xaw mati kagne hein mati trois po yow nga amna ñu la menacer fi France mais ba gis gisuma la nga porter plainte man bétti pré ma plainte ma ngi live di wax sa tur matin midi soir bu vous convoqué wax pourquoi ma lay Mati Trois Pommes gis nga Mati Trois Pommes vous France parce que affaire la ngay dox Sénégalais ku xam ma Mati Trois Pommes preuve au niveau de la France def une pétition mu tëj yi Sénégalais yi ñi xam Mati Trois allons faire une pétition vous ñëpp fa xoonam police française, parce que criminel la Mati Trois Pommes criminel parce que moom caméra boobu day toog di fenal sénégalais di fen nañ jël vidéo mi yëpp miy duwul di des di Hein? Tu tubaabam bi est-ce que xam na loo xam na lu muy joué sa Mati trois pommes Hein? ah ma ne sénégalais Mati trois pommes fu gën continuer di fonto patriote Ma Mati trois pommes fu continuer di di duulal Ousmane Sonko on va dañ porter plainte fi France ni de pétition dingue nga parce que li muy harcèlement la li muy mensongère la crime la parce que Mati Trois Pommes mi ngi ànd ak yëf yi salté quant à Françoise Hélène Gueye moom États-Unis def leen ko fofu def leen ko fofu ngeen def plainte collective contre mom parce que ni li du démocratie li c'est de la haine c'est de la jalousie c'est de la méchanceté et ça c'est puni c'est puni au niveau de la loi waaw loi française li yëpp li Mati Trois Pommes ñu def nii charme charmé si kanam ci kaw Ousmane Sonko li c'est grave li c'est grave sénégalais patriote de fi France

français me porter plainte man man man de mangi xaar man man dina la laajibal matin midi soir ndax fenkat nga yene a tax yéen a bëgg a Sénégal yéen voilà yene bëgg a Sénégal yu leen bàyyi ngeen tal Sénégal hein? gis nga man ni ko amal Mati 3 Pommes preuve mën nañ ko porter plainte au niveau de la France même Mati 3 Pommes nga am nationalité wala nga am séjour mën nañ ko nangu hein? parce que ce vidéo yi lañuy jël. Hein? charge télécharge ko français quant à ce problème problème personnel a c'est très grave qui Trois des gens qui la loi française voilà donc Khalil Babali des da nga des gendarme hum. pour protéger waaye lépp dina leer lépp leer na Kalidou Babali loo fi wax ah li ngay raconte noonu si live Mati 3 Pommes nga ni gel bi nee na waaw da doon dawal ah nga laal ko fi nga laal ko fële Kalidou Babali ñu gis nañu vidéo bi sa sa paa boobu nga xam ne gonflé yooyu yéen ñii mbaa gel bi nekkoo leen à deux personnes sax après nga menacé ko c'est à revoir déggul ma déggul ma kii euh, déggul ma ki gel bi yëpp ah déggul ma ma yëpp. Khalidou Babali dinaa am jot tey dinaa déggul gel bi dugg na si live Ousmane Tounkara ah dinaa lu mu wax ak audio yi mu wax léegi man Khalidou suba sama live moom dina saf sàppi maa yéen jëlee naa leen journée suba yow Khalidou Fatoumata Danso Fatoumata génn sa rukk fii la Khalifa nekkoon di chantage jigéen Fatoumata Khalifa jox la audio yooyu ah Fatoumata Danso ngay chantage samay jigéen di chantage sa moroom jigéen Fatoumata te nga yow ji nga ni yow jigéen nga yow Khalifa Sall bi mu nekkee France Fatoumata Danso limu def jigen rek da la ko yone fatuma ta gene suru koña neena li yeen da ngay di feñ da ngay laal du laal fu lu warul laal ta di nga gene califon sa bu duggee prison da nga dugg prison di nga dugg prison da complice califon sa nga si a 100% pour cent waaw man xamoo ni un jour yee ñëpp da ngeen di feeñ yéen ñi feeñ ngeen ngeen da ngeen di forcé Kali Fatoumata da nga feeñoon nga nii da ngay ah bi Khalifa nekkee France fii Fatoumata Danso ñaata jigéen nga chantage ci Et ay jigéen yoo xam ne Khalifa Sall dafa leen dafa leen filmé yow comme Californie, yor na sa boss, sa xol jeex yow Fatoumata Danso yow. yow tammi Californie, yor sa boss, doxaan la léegi yow parce que danga yow bo yow sulu bon ngay dox Fatoumata parce que yow en fait Californie amna la sa bagage yow tammi bëgg kenen melni ni yow. moo tax Kaliphone bi mu amee bagage ñeneen ñi Fatoumata Dansokho Kaliphone dala paas bagage yi Fatoumata en 2021 Kaliphone sa numéro téléphone am moom bu bu daan ku ko woo yow yaay tontu Fatoumata am na benn gel boo laajibal fii du ma tudd parce que voilà sekk na ñu jàmm rek bi nga laajibal fii loolu lu tax nga laajibal ko yow da nga fekkee fi ka Kaliphone di doxaane da nga fekkee ah fekkee woo ko de Fatoumata mais yow Kaliphone Sall.

moom bu nangoo rek ma di bomb audio yi si réseaux sociaux yi ma di bomb audio yi donc yàgg nga nekk complice Khaliphone Sall parce que Khaliphone Sall yor na sa bagage léegi nga bëgg ko sa morom bu bon euh, yow danga bon nga bëgg nit ñi bon gel yooyu da nga bëgg ñoom ñu bon Fatoumata Danso nga leen di chantage. bale ba sama soj soj bi ngi ñëw si man nag man tam toujours ma soj ah donc Fatoumata Danso yow. gel bi xanaa mu autoriser ma mais bu ma autorisé wule hein? ah dinaa teg audio yi nga ko doon nga ko doon menacer chantage ko nag yo gel bi bu sekkee dara Kaliphone Sall yow lu si toyoon Fatoumata yow nga nekk fa Belgique ñoom ñi nek fii lu si toyoon ah hein? yow ngay chantage gel bi yow yow jaam nga yow. légui Kaliphone sal limu mu def fi France yëpp jabar jàmbur li mu doon doxaan Fatoumata yo mi am nga ci preuve live nga ci sax yaa ngi fàtte gis ni ñëw muroo Manta Jolie yaag yow Fatoumata yow mii man moo tax man ni ku leen faral ku leen faral ku ku leen man ku leen faral man Fatoumata ku la faral ba xool si pot ku la faral xam laa def dama gas pax suul leen fa ñoom ñëpp parce que man du ma ràmbaaj njaago hmm, naal ni moytu njaago bi Fatoumata yaa ngi feeñ Kaliphone bu i kaso woon dina weere yi bëri xanaa mu bañ ko def yow faa léegi <laughs> dil yi nga doon def Kaliphone di chantage nit ñi si suuf ah yow faa yow noo nekkee Belgique noo xamee Californie fu doxaan doxaanee jabar jàmbur fii ba au muro di doxaanee jabar jàmbur Mantes la Jolie nga ni yow doomu shérif nga yow Fatoumata nga ni yow doomu jullit nga yow ah. Californie même bu la wooyee si ni la doxaan naa jabar jàmbur loolu dafa haram dafa haram Fatoumata dafa haram dafa haram da nga ko waroon ni Californie Sall non jigéen bu faible faible waroo ko doxaan loolu mooy gor mais Fatoumata doo gor da nga di. ndax yow ni nga mel nga bëgg ñëpp mel ko Fatoumata daa sox Fatou Bim Sarr nga ne nga koy waxal ni man ngay waxal ba nee na fenn rek yéen Fatou Bim Sarr xoolal bu dee mën da ngay saaga fii xoolal man daal ma génn la rek bale la rek nga dem fële nga dem bale mbedd mi dégg wala nga ñëw fobar ma sama buntu kër xaw ma koy waxal nag maa ngi xaar deuxième commentaire man bloquito bloquita de voilà donc Fatoumata Danso yow ah yow génnal parce que yow tamit complice Khaliphone Sall nga ndax Khaliphone Sall bi mu nekkee France fii yow même bu demee doxaan jaboot jàmbur Fatoumata waroo ko nangu da nga ko waroon ni Khaliphone Sall li ngay def ni baaxu baaxul santul yàlla bu bañee nga dénoncé ko loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg Fatoumata ah donc yow yaa nga ne da toog di nga génn nag di nga génn par force bo len leen bo len togn bi bitti de xam nga ndeysan yalla nit quoi man dom bois sagré ngin saga ma saga ma saga ma saga ma saga ma saga ma sama ak dal na len tamit ak ñi bari mo len dal may sama som dal na da fa atuma te yow ni na ma ngi ñëw suba rek kan kanta à baba Babali xam nga la yegal sa dem gendarmerie da nga demone profito non nga defoon bëgg califon sal da non nga ma defone sa live en 2020 man may woote si laaj nga def ma silencieux nga ni Betty Préra mii dafa dof dafa def nii dafa def nii sénégalais xam naa ñu bëri ñu ni waaw Betty moom may kan or nga def ma silencieux di wane portable yow Fatou Danso yow ngeen def ngeen ba Fatoumata man may ngeen waxal bëgg baay moom ngeen fenal bëgg baay yow Kalidou Babali sa laaj nga def di woon sénégalais nag nit ñi de xattaraay que Betty Préra dafa dof te Déthié Péra mi ngi ne léegi nag du wér naa xam <laughs> ngeen problème <laughs> bos mu dof da ngeen bañoon ma participer laay boobu pour leeral te yéen da ngeen nekk di fenal bëgg bàyyi ah nga bloqué ma nag silencieux la ma defoon nag muy wone Sénégalais portable la nag xoolal may woo du ma ko wuyu ma xam seen dil yi Fatoumata yow Khalifa loolu yéen dil yéen dama leen xam booy dama leen xam man ku ma tegal bible wala Coran damay waat si dëgg rek yéen yéen man dama fen sax. da ngay mën a duul ah man ngeen doon kooku Kali 2020 ak 2021 Kalidou Babli yow Fatoumata Danso <laughs> wu yaay yooyu moo tax démb yaa ngi lox yow Fatou Fatou Bim Sarr maa ngi lay xaar de nee naa la man bu dee commentaire bi ma paree fii live bi ma pare ma gis commentaire bi yow man ngay waxal tontu ma nag bala may coupé live bi dégg nga damay coupé live bi ma génn suba suba lay génn waaw du ma génne tout à l'heure il faut ma waxtaan sama collègue Deng. donc yo yo yo yo Californie, sal da nga gendarmerie ba da nga demoon pour la gelbe. mais Kalifone sal même gelbe, ça bu dans da dawal nga ko on nga comme li nga expliquer trois pompes on s'en fiche l' même jabar ça, même jabar ça, Jigen, jigen, ko forcer li même gelbe, bu lesbienne comme ni nga aussi. Yo lay ils dem di même gel bi bu nekkoon li nga wax noonu si live Mati trois pommes ñun suñu yoon nekku si yow yaa dem même nga dig koo xaalis yow da nga ni da nga ko gel bi dafa ni da ko digg xaalis xaw ma naka naka yaa ko nettali yaa nettali de ma li nga nettali rek laay wax fa Kaliphone Sall gel bi boo ko dooxaanoon sax mu nangu pour nga tëddee ko sax loolu c'est pas grave loolu si entre yéen lag yàlla ñun xamuñu fekkee mais yow da nga ko dóora dóora dóora dóor ba kanam bi néew yi lu seen di dóor Kaliphone lu si indi dóor nga ni amo doole akali <laughs> ah, do Babali nak amo doole yow gel bi bu dang ko jox dara lo xamne mom noy na di ko dóor yow de mo dóor ya bo demé sa dang ko drogué bo demé dang ko drogué Kalidou Babali boo demee da ko drogué parce que yow bo ni yow amo doole wa bu da ngeen drogué gel bi nak ah di nga am doole de do am doole parce que drogue bi eh, eh, mën nga mën nga ko defal dara si boisson.

pour mun ko setal nee na nañu xaar ba rapport bi génn xaw ma naka naka naka naka moytu leen nag bi yóbboo ngeen dem benn géné ko boo xam ne bu ko kenn yëg waaw comme benn bokk yaakaar li mu def noonu gel bi ah gendarmerie foire bëgg a camoufler affaire yi gel bi yaayam yóbbu ko bonjour bonjour Aïda Sarr bonjour bonjour hmm? gis nga Kaliphone Sall li muy wax ni démb bi yóbboo nag yaay xale yi jigéen ñaari jigéen ñooñu bi yóbboo nak ngeen moytu ban géné ko ngeen di dem parce que du gis nga l'histoire Adji Sarr dafa leer naññ naññ naññ naññ Adji Sarr affaire am yëpp fen la ba Généco bi indi nañ ko ñànk ñi ngi ki ñànka ñi ngi ki ñànka nguur gi bëgguñu perte Kaliphone Sall ah. bëgguñu ko perte nag bi yeboo nag gel bi gel bi gel bi Kaliphone mujjee violé nii bi yeboo sa yaay bu mu xoolal wut leen Généco tubaab sax Sénégal am na Généco tubaab Sénégal am na Généco tubaab dem leen ko tubaab yi waxu xeebuma Généco nit ku ñuul ya xeebuma leen mais bu Kaliphone xam ban hôpital ngeen di defé sen test yi mën ko falsifier nak après Kaliphone dina génn fi nak nit ñi wala da ngeen non ba violé gel bi gel bi fenn na gel bi yow ya ñoo am problème nak bi bo ñi jégué famille gel bi ah Kaliphone mi ngi bakku nañ xaar ba rapport bi génn nañ xaar ba fête bi génn bu dé violé naa ko mën naa tëj peine mën naa tëj xaw ñaata at prison mané ni sal mi nguur Macky Sall bi bëgguñu ko perte mo ah, ma leen ko nak peuple bi bëgguñu ko perte waxuma Macky Sall nak

waaw damay dem ba suba dinaa ñëw décortiquer Fatoumata maa ngi ñëw sa kaw Kaliphone Sall Fatoumata Kaliphone bu duggee prison Fatoumata ci complice de A waaw wax ma bu Sénégal bii de wax ma viol bii de bu Sénégal déedéet mais Kaliphone Sall bi mu nekkee France jabar jàmbur bu mu doxaan mu wax la ko Fatoumata man am na ñoo xam ne dañ ma woo ah man ma Fatoumata yow Kaliphone Sall fàtte ngeen bi mu leen nee bàyyi boo leen boo leen bàyyilee jabar jàmbur dinaa leen nokk yaa ngi fàttali Fatimata parce que gel tiit ba wut sama numéro téléphone xaw ma leen de xaw ma leen woon dañuy tiit ba wut sama numéro téléphone man maa leen yéen dénoncé le génnoole live-al gel yooyu man grâce à man mii parce que dama leen yónnee audio si suuf kat Fatimata yow Kaliphone boobu yéen leen de dam leen taf parce que boobu yéen da ngay ma saagaan 2020 ba 2021 mais gel yi ñooñu dañ ma wóor en 2021 xaw ma kan ma leen jox sama numéro téléphone nag ba ñu ñaan ma ñi ñaan ma nag ñu ni ma ma dim ma dimbal comme comme ça bu leen tas seen sëy bu leen tas seen sëy Kaliphone Sall yow Fatoumata sénégalais c'est-à-dire que Kaliphone Sall man wax dëgg yàlla Fatoumata dama leen bàyyi depuis 2020 bu ñu ma commencé saaga mais bi muy doxaan jabar jàmbur yak ak gel jàmbur yak c'est en 2021 na wax bi leer nag balaa ñu ne Betty Préra complice de déedéet depuis 2020 depuis octobre 2020 Kaliphone moo commencé saaga laa leen taf

man tam sama batterie bi ngi dem di moom bu coupé nga xam ne batterie moo dem nga xala ma dem chargé ko tout à l'heure waaye du ma génn te après concentré sama collègue walaay ah voilà man si boppam après ma gel yooyu yónnee ma si leen Kaliphone def ak Fatoumata Fatoumata dama ko laajibal si WhatsApp moo tax bu may nee Kaliphone ak Fatoumata six ak neuf lañ mais Kaliphone moo nekk neuf bi si kaw nag voilà moo tax Fatoumata dénoncé le gel Yoyou. en fait chantage Fatoumata dafa leen un chantage C'est ça la vérité Je hein. dafa un chantage bon je ngi dem ba suba incha Je suis dormir je vais waaye a Je <laughs> danaa plus Je suis problème am ngeen problème Je mhm. ah man lu di wax sénégalais gel bi Je suis xam ban lay dem de bu ko xam de bu ko <laughs> neexal ba corrompu les corrompus am nay ak ay am goor ak amna Sénégal dañu corrompi de Afrique les corrompus la moytu batterie bi dal ma ngi suis ba batterie bu coupé ngeen xam bi coupé na ba suba. gel bi dal mu di conseil bu dem ko da xam parce que sal su nguur gi la ah, ah ñom dañu am pouvoir c'est ça ah. <laughs> am pouvoir bu ñu xamé ba rek chantage wala quoi. Ah. comme ka ka benn bokk yaakaar boobu kilifa boobu moo moytu leen daal man ne man man Sénégal bële ba ma demee médecin soo mu ko waxee bu leen wax daal bu leen ko wax kenn voilà Kalidou Babali ah yow Kalifou Kalifou wóolu na boppam de mi ngi ne preuve bu génnee preuve bu génnee c'est-à-dire côté médical bi quoi côté médical bi moytu leen daal man ne maa ngi delluwaat sama médicament yi man mhm. waaw waaw Kalidou Babali da nga violé doomu jàmbur bàyyi duur

Betty Prera day live man sama live moom du waaw tey damay tàggoo nag live bi nag du ma tàggoo mais suba.